bismillahi irrahmani irrahim mbokk yu tedd yi ñu leen di nuyu ji leen ziyaara ak fu ngeen mënta nekk vidéo bi nag ñaari yëfa ko waral bu njëkk bi mooy ndokkeel suñ bopp ndokkeel leen ci at mu bees mi ñu dugg di mille quatre cent quarante quatre ñuy fàttali gàddaay yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak njàngaleem yu rëy alayhi salaatu wassalaam di ñaan yàlla dimbale ñu bañu ñu gàddaay léppi ak léppi bakkan jëm ci lépp yàlla kub yonentam sallallahu alayhi wa ñaan sama borom mu neexal at mi defaral ñu suñu waaxir defaral ñu suñu baatin képp koo xam ne jàngoro mbaa xat-xat bu mu bu mu ziyaar si na la yal na yàlla ñibbiloo jàngoro ñibbiloo xat-xat indi mbégte indi wér indi jàmmi biir ak jàmmi biti sax yàlla boole ñu texe àdduna ak texe àlaaxira ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ñaareelu point bi mooy élection yi nga xam ne ñoom la ñoo tuddee élection législative jongante yi ñuy tànnee ndaw yi nga xam ne ñoo ñuy teewal ci pencum réew mi muy assemblée nationale kon li tax ñu leen di tànn ba ca njëkk mooy teewal ñu représentation ñaareel ba loi yi nga xam ne ñooy gouverner suñ dund ñooy ñi koy yóbbu ñooy ñi leen di yóbbu ci penc ma ba bu fa gouvernement indép loi ñooy tax loi yooye mën a jàll mbaa bañ a jàll yooyu nag mbokk yi tax na vote gi am solo lool mata bàyyi xel ñetteel bi ñoo ñuy càmbaral ñi ñu jiite naka lañu jiite alal ji nga xam ne jox nañ leen ko ak poste yi nga xam ne wuutu nañ ñu fa ñooy contrôler di saytu ndax yorin ga baax na buñ jëfee ba pare it ñooy natt évaluer ndax noonu lañ waroon a jëfee dem am na lu manqué su amut lu manqué ndax mënoon naa gën a baax yii nag mbokk yi suñu dul yi gën a sérieux cim réew bokk nañ ci yi ci gën a sérieux moo tax maak yow bu ñu demee bay voté nañu xam ne duwul ne lu ñu neex rek lañuy def waaye ak jaamu yàlla la goo xam ne jaamu yàlla gënu ko rëy ndax yittewoo mbirum jaamu yàlla yi la rawatina mbirum jullit yi te yonentu nee ku yitte woowut mbirum jullit yi bokk ci ñoom man nag gannaaw bu ma ñaaxee sama bopp ñaax leen ne ku nekk ci ñun dafa war a danaa ci yokk ne ñi ñu fa teewaloon ci treizième législative bi en ñun jullit yi bañ leen indilee luwaa buy tax ak ngóor jigéen ñu naax saayal ko dañoo lànk ñooña nag di député régime bi fi nekk képp ku leen wateel danga nga amanteeg sa borom ndax dëgëral nga ngóor jigéen loolu nag benn la ci yu bari yuñ mën a wax waaye benn da ko caa gënt ndax àdduna bi toll nañ foo xam ne waxatuñu waxi ngóor jigéen waaye sax dañuy wut seeni prono yu bees jigéen naan la bu ma woowee she woowee ma they transgender yi sos seeni prono yu bees musiba woow nag nga xam ne Occident doyal nañ ci sëkk ñun ñi nga xam ne nag yàlla ko yonantam ñooy gouverner suñ dund ñoo ca war a gën a doyal te senegal nag lu la nit mënta wax réewum diine la kon nag na ñëpp génn voté ji waaye na ñëpp fexe ba moytu voteel ñi nga xam ne ak ngóor jigéen dañoo taxaw pour mu dëgër ñun nag amuñu parti politique amuñu kartaay benn parti waaye suñ doon ñu am sañ-sañu digal ku mën a voté ab coalition voteel nangam wala nangam coalition daañu wax ne nañu woteel yeewi askan wi ngir lan ngir ne seen position ci li xam moo gën a radical ci anam gu baax giñ war a yore réew ak wët anam yu bon yi ñu yore réew te tamit bu fekkee ne ñeneen ñi mënuñ leen a sikkal ngir xamaluñ leen dara it xam nañ ne coalition bi ñoo gën a mën a tenir tête coalition bi ci pouvoir bi te mbirum élection député mbirum raw gàddu la su ñuy wotelee ñii ñuy woteel ña bu leen coalition bi ci nguur gi rawee benn mbaa sax dañuy jël département boobee yépp loolu nag mbokk yi ñu bàyyi ci xel bu kenn wax ne man politiguma ma wala nangamuma ba tax njëriñu sa réew ak njëriñu say ñooñ réew ak njëriñu diine nga sàgganee ko duwul ne dañoo contour ñi fi nekk mba dañoo ànd ak yeew yi askan wi te loolu ñu ngi koy xam bés bu yàlla joxe yeewi askan wi ñu jiite nii ñu taxawee di càmbar ak wax liñ xalaat ci jagut noon lañ koy continuer incha allahu taala hada wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu